alaikum salaamaaleykum gars yi eh, talaxlax réew mi rakam rakam jéeg rukum rukum ji eh, kaay leen ñu naan café eh, dose matinale naka suba ci ndax am ngeen jàmm ndax réew maa nanggu layaa dama ni mbaa kenn yabu leen kenn yabu de bu len nangu ken yab len de bu len nangu ken yab len ndax rew fi mu tollu euh takna suuf de neen def ak ah fa ngi ci mim rew de encore une fois neen def ak coono mbaa yabu ah deglu len lolu andata na ma jël doos. Euh, ñu di ko wax lu ci àq ci wa jairan ak wa man yi waaw am nañ bu baax a baax ñi nga xamante ni moo leen baax a baax ñun ay nit di jàppale mais bu ñu neexoon seen seen bi xamee nañ bu ñu neexoon mbooloo mi bu ko def baax a baax a baax na nekk nit baax na nga askan da koo bàyyi te xamul loolu billaahi askan bi naqari su xol mooy kenn di ñëw ndax pendant dix ba nga nekkee xale ba léegi kenn di ñëw matul sax dix ans xale bu ndaw nangul lépp ñëpp ànd ak moom loolu nekkul si xol mais nañu ba seen xol yi Barthélémy Dias dem jaay saytaane naan a ay way no Samba eh, yeen ñëpp gis ngeen li nga xamni mo xew dembu eh, doyna war ci waja inan ak wa man waye man betuma ndax man dama mëna top ka damay top ka parce que fan ye ci ginnaw eh, bala ma ñew ci baye bar bala ma ñew ci baye bar gémmiñam gi mel ni États-Unis bala ma ñëw ci Baye Bar euh, damay wax ci Baye Khalifa euh, fan ye ci ginnaw xëy yu bari du ngeen ko euh ta man damay top ka deg na Baye Khalifa di wax di wax di wax ba ci yag ni ah man de dama ni won na bokku rek waye fim ne ni de moom naa buruxlu wa Khalifa yow legi ni ngay buruxloo Khalifa Sall na nga def ak cion naka talax mi Khalifa euh, Sall ni ngay nii ngay buruxloo nii nii ngay buruxloo xalifa euh, Sall nag wax yow dafa jot yow bay Bar euh, wax yéen jot na parce que nag bu fekkee nii nga bëgg a buruxloo yow nee nga naa bokk rek ñu bale ba ci yàgg nga xam ni boobu doxul nga mujj nga ni naa buruxlu ah nii ngay buruxloo sa tuñ ñu toj ngay mel ni ku manqué vitamine C. Euh, Baye Khalifa naka def ak mana mën xeri setu koccu bi naka talax la réew mi rakam rakam je rukkum rukkum je encore une fois damay féliciter patriote yi nga xamni manam top ñu wa keur Khalifa Sall ci li top ñu len ci li parce que euh, manifestation jambour bo xamni dañ ko autoriser lu fa euh parti di wut ba koy yak ba xex di fa am ba sax di fa gaaj ay nit te dégg naa ci rajo Kankan ñu ne li di njaag Barthélémy Diaz mooy njaag ñi ko wax bari na euh, bu ma dikkee ci côté boobu maanaam fan yi li mu fi génn ci ay wax maanaam ay wax yoo xamante ni amul bopp amul geen amul bopp amul geen maanaam euh, trafiquant de personnalité international euh, mooy Barthélémy Diaz trafiquant de personalité la parce que tax man leen trafiquant de personalité la li muy wax gëmu ko li muy ñoddi gëmu ko fetalam la yor mëkk doomam di doxantoog moom ku mu yaakaar ni da nga xaw a am noomel wala da nga xaw a bokk parce que bu ne la koo joxoñ te ñun loolu bar duñ ci ànd ak yow parce que problème bi mooy bu fekkee aw fit la yow amoo ko ndax tàppet dëgg pire mooy doxantoo fetal arme ku dul alkaat yi wala gardien wala kuy liggéey ci wàll woo xam fetal laaj na ko gardu fetal mais nit simple yow yow yow do gardien do carapi do bis do alkat di doxanto fetal tapet numéro 1 fa la tàmbalee tapet numéro 1 fa la tàmbalee ngay talax-laxe di layam mais yaay né day recruter nervi euh wut ngeen bës ci côté bu né du ngeen ko am ñun du ñun ak euh bay Bar euh mbeut mi na nga def ak coono ma sa gemmi ngi mel ni carte États-Unis sa gemmi ngi mel ni cinquante deux états ma ni Barthélemy du ñu nag yow du ñu nag yow de barke yow mal xuloo jël bata sa kanam gu bari couleur mel ni drapeau Mali billaay wallaay taalaay du ñu nag yow noo du ñu nag yow ñu suñ niveau da leen a jéggi ñu ak seen bàyyi la xaali na ma def ak coono ma koy nuyuwaale au passage du ñu nag yow kon yii ngeen def e, patriotes yi bàyyi leen xel bu baax a baax a baax ni e, moyen d'infraction Manam li tax ba élection manam dootul gaaw am Sénégal ci ñi lay juggé parce que ma tay ma mané ma tay ma ma eh kif kif ma tay ma tuun ñun ñëpp parti au pouvoir lañ bok dañ ci wax ci waja iran ngeen dig ko ci wa baati man ma tay ma kus ma sitaay ma tuun laax et kon gars yi euh, foog ngeen yeewu maanaam ñii ñun xam nga ni ñun ñun moom wax dëgg yàlla képp kuy wor ci naar naar ji guuxum soow ci ñun la fekk baax barke yow mar xuloo jil basar ku ñu woo ci guuxum soow barke alxuraan di nga dem ba jeexal am soow sunum soow di wala ngaan nii kon ñun buñ leen fekk siwul ci lii encore une fois damay féliciter patriotes yi sunu kuddu jàmm la ràcc fer play lañ woote élection rek ci wa jairan ak wa baati man ñii ku leen topp la ñu bëgg ba na fomme élection yi te du am élection yi duñu ko fomm carte gi nan ko xewwit it nan ko xew de xew it nan ko xew élection yi nag moom euh, am na ci ñoo xam ni ñu mel ni ñii ma gis te boo waxee ñu ne waa Pastef ñoo yee fitna talax laxi rakkam rakkam di layam layam di wër di fen te ñoom ñii ñoo yor fitna si yàlla xam na ni ñoom ñii ñoo yor fitna si. mun sañoon réew mi day boy yëf yi randu waaye du nu ko randal du nu ko randal du ko randal bàyyi bar yëf yi du randu du randu de xalifa Sall nag yow euh, man li ma la bariwul maanaam yow euh, yow yow say bala jeex fi mu ne nii parce que euh, bàyyi Khalifa ba nga ba nga dalee politique yàgg na nag ah ba nga dalee politique yàgg na de buzz xam naa ah ci ñun nga bëgg a foree buzz loolu ñaan ko ci njëkk rek.

mbayi sonko ñun ak mom talax laxi rakam rakami nani fonde pale, ndem man nané ci wa ak wa batiman day leer parce que nak li ngeen bëgg ñun duñ leen ko may ngeen yor seen tuñu tat seen ñu xar sofé ba yaqku di seen seen yaram di laaj vitamine C ngeen yi wote xex ku sa yaram di laaj vitamine C nga wara dem ci lan hôpital ñu tabulay pikir sampulay bitir nga ya da ngay wote guerre mondiale dans quelle région Fatick Kaolack Ngësobin wala fan man comprendre ma parce que Baye Khalifa naa bokk nga woote woon naa bokk rek yàlla def nga bokk te yow sa bopp xam nga ni ndaare ngay jël nga xam ne naa bokk rek gigu la nga ne naa boroxlu ay waay xalifa plongeel ba xam ku koy yëg Khalifa ndaare ci wa jairan ak wa baatiman yow yàqu nga yàqule yàqal sa bopp ci lépp yow ba nga wore nga fay ba nga woree nga fay yow ñuy mise à réew mi doo ci bopp te ki nga àndal dof pilis la bàyyi bar gémmiñ gaang ca ndong la du wax ndànk te li muy wax xamu ci dara kon encore une fois patriotes yi focusons-nous l'avenir est devant nous focusons-nous eh waay gars yi focusons-nous focusons-nous xanaa xamoo patriote bu daw ba ñàkk rek Lal benen benen manam risu benen doomu adama bo xamne ci benen part la bokk rek yang koy may bës dee leen maytu yoyu bu ngeen exporté ba xawa ba xawa ba xawa ñak ni en tant que patriote wut leen morso fomp wala ngeen tok ba wow soog dugg ci bir nit ñi parce que yene ngi maye bës ak bayre tay wol len ko kenn du bàyyi sayidina Ousmane Sonko barke yow mal basar ah way bay Ousmane Sonko li lan la dama ni li lan la xol seddati na li lan la bay khalifa bam fanane ci ngam ken diggatu ko bay khalifa bin ko fi keppe ñaf ko ci kasso bi ken diggatu bay khalifa bay ousmane fonko jël ko fat ko ci kasso bi xolal melni bay ousmane il est là mais nak il est là il est là dina ci fentu way dina ci fentu way il est là bay sonko il est là waaw mi ngi fi gaay fokk sunu mbele mbele day yok ciow eh avançons-nous patriotes yi fonçons-nous barke yow Mor Khoulo non sama xol bi daa sedd parce que ay doomi adama ñi ngi ñëw di bëgg bës bëgg siiw bëgg nit ñi xam leen ñaata at ñuy politique kenn xamu leen benn booy bu ndaw xale bu ndaw deux ans deux ans salaamaaleykum askan bi ni ko yow la <laughs> Ousmane Sonko euh, yàlla yi kese la gars yi focusons-nous fokusion wu te ngeen bàyyi ñi ma talax laxi rakam rakam yi ko cere doli ñeex bàyyi Ousmane fonko talax laxi rakam rakam yi ci fer pele. ci fair play xeexu eh ñun xeexuñ xuloo ñun bàyyi ran yoy ñun bàyyi na ay xex ay xuloo ay sànni ay lacrenate grano majel yëpp bàyyi nañ ko no bàyyi nañ yoy daaw ci taw metti bàyyi nañ euh dama seetaan ben plateau euh, gis fa ben manam as ndaysan euh mu wax wax jo xamni euh doy war muni manam Ousmane Sonko li dal beñe dugub moko ko tek ndax dafa bëgg beñe dugub mais nak ki nga xamni mom la bokkal plateau bi ndaysan déggul motax parfois man sëtu kocc bi day jar ma ci ñëwaat di ci jaaraat euh, parfois tonto du forox neena ki nga xamni modi di Ousmane Sonko dafa bëgg beñe dugub il lem beñe dugub il beñe dugub bu fekkee ñun beñu dugub bi ñu xam la te maire di ko jaay ci tali bi wax dëgg yàlla Baye Ousmane moo ko promouvoir ba beñu dugub fi mu ne nii dugub daa amatul fi mu ne nii dugub appatul <laughs> Baye Ousmane moom tuddee beñu dugub ak léegi man beñu dugub sax laa gisatul patriote yi toog nan lépp toog ni mu ak moom di xaar ku ku saafaat bañ a dugub ba ñu yëy ko sàqami ko sàqami waale la yow mi jaay bañ a dugub bi boo amul saas <laughs> kenn du Seydina Ousmane ci kaw bañ a dugub boobu Euh, am na jigéen ju ma dégg ci plateau mu ni Ousmane Sonko dafa bëgg beñe dugub lu ko dal beñe dugub moo ko ko teg mais les deux beñe dugub ci dégg-dégg en tant que surtout Kocc Barma les deux beñe dugub c'est pas la waaye c'est c'est pas la même de beñe dugub bii dañ koy saaf ci diwlin di ko jaay benn juróom walla benn fukk waaye beñe dugub bii ah la ah lëfa nga ca non lëfa nga ca. lëfa nga ca nañ ko déglu nag ci wajaa iran ndax nee na Ousmane Sonko daa bëgg. beñe dugub beñe dugub bi de moom bëgg na ko moom. waa ba tey beñe dugub bi. Euh, bëgg na ko beñe dugub bee ko yóbbee li mu nekkee léegi. waaw waaw beñe dugub bi xam nga. peut-être ah wax mere naa bii invité man maa mere bii invité man maa mere bii invité tontu du forox tontu du forox bàyyi booy mere naa la ci wajaa iran ak wa baati man. ndaw si ci boppam moo taxaw wax ni Ousmane Sonko. mais yéen dugub bee ko yóbbee li mu nekkee lépp. waaw soxna si man dama lay laaj ba xam da nga koo mas a may sa beñ a dugub da nga da nga mas a may ah question la da ko mas a may beñ a dugub wala ah la mu saf ko ko macca ko xam ah day leer de ci wa iran ak wa baati man dama ni la mu saf ka ko macca ko xam yow noo def ba xam ni en tant que jigéen Ousmane Sonko daa bëgg beñ a Mm, mm, question question question question la ah, ah, de question la rek question la rek ah bu fekkee beñ dugub bi saaf ak diw wax a dugub boobu moom bàyyi bu fekkee nag beñ dugub ñun su beñ a dugub bi ñuy saaf di ko jënd doom juróom da nga ko yóbbu feneen dama lay laaj ba xam Ousmane Sonko yow da ko koo mas dugub noo def ba xam ne Ousmane Sonko daa bëgg beñ a dugub bàyyi booy yow nga um nekk ci plateau teewal fa Pastef magum Pastef nga. xale bu ndaw jàkkaarloo yo naan la wéy Ousmane Sonko dal bañ a dugub bañ liko dal ko daal dugub ko tek doko laaj ba xam mom da ma sa may Ousmane Sonko bañ dugub mais on se dit la vérité tontu du forox quand même ah laajal mako ba xam mom da ma sa ma sa may Ousmane Sonko bañ a dugub tamit ba xam ba xam Ousmane Sonko mom mom nu def ba xam ni Ousmane Sonko da bëgg parce que en matière de daya awyon manam beñu dugub daya awyon ta bari na ta bokul beñu dugub bari na ta bokul legi nak yow comme yow soxna ci yow xam nga ni Ousmane Sonko da bëgg beñu dugub ta limu dal liko dal beñu dugub ak ko tek legi yow no def ba ni Ousmane Sonko da bëgg beñu dugub en plus xana donc ko massa may beñu dugub beñu dugub beñu dugub bi de mom bëgg nako mo wa ba tay beñu dugub bi bëgg nako beñu dugub be ko yobé limu nekké lé wa wa rew mom rew jaay marché réew jaayal mat ak kum neex réew de moom kum neex réew aku ak ah, neex réew di laajal ma ko ba xam daa mas a fab ci beñu dugg ba moom may Ousmane Sonko hmm? bu fekkee moom mas naa fab ci beñu dugg ba may Ousmane Sonko rek ma si taay ma kus kon sem-sem li naar bi naan ma xëri sem-sem sem-sem ma si ah, ah dëgg du rombi nopp na ngeen def ak coono ma am ngeen jàmm ah ci kanam moo doon nuyoo rek dama xëy yeewu di yaram yu xawa am ngeen jàmm mani jël man ndaw si ba xam dama samay Ousmane Sonko biñu ñu ade day leer ade ade ah mom neno Usman Ousmane Sonko da bëgg biñu si loolu la wax legi mom la jël mako ba xam bu fekke ba ñu bu bay idi bi ba bay idi ye Ousmane Sonko fajar bu fekke ba ñu bobu la man ni da ko bëgg ah bu fekke nak bu fekke sama kal ah, may mam la parfois ñu côté beñe dugub ñaaw ñuul yépp nañ def ak coono am ngeen jàmm waaw laaj bu fekkee daa ma sama baay Ousmane beñe dugub moom moom mu xam rek ñun ñu xam ñu leer su ñu day laaj rek xamuñu dara ay xale xamuñu dara xamuñu dara <laughs>